Ziguinchor ku ko wax xel dem ci Ndaamaras mu doon saison bu askanu Sikicoor fonk lool ndax njeexitalam ci wàllum koom-koom daaw ci atum 2022 nguurum Sénégal jot na exporté ci lu tollu ci téeméer ak ñaari junni tonnes mu tollu ci juróom benn milliard ci franc fa gannaaw ko par yooyu li liggéey ju métti coono ak risque ca magasin de stockage yi moom la main-d'œuvre yi di jànkonteel góor ak jigéen fajar lañuy yeewoo ngir jubali ca magasin ya di weer ak i weeri ndaamaraas yi ba noppi di ko sol ci saaku téeméeri kilo bis bu ne. liggéey bi métti na méttiyaay boo xam ne dafa ëpp yow dugg nga ci biir magasin bi. raison raison lañ jóge pour daan doole rek raison raison ñu lañ jógee ñu ngi jógee fii ba Saalum am na ñoo xam ne ñu ngi jógee Bawal yaa ngi dégg am na ñoo xam ne ñu ngi jógee Kajoor am na ñoo xam ne ñu ngi jógee dakaar pour ñëw fii pour daan seen doole rek pour yóbbul yóbbul parents yi mais loolu noonu suñu mbokk yoo xam ne ñoo nekk ak indien ñoo ñoo ñu war a mën a dimbale bañ gis suñu bopp ci lii saa wu lii dafa métti ko xoola lii nii dañ ciy dugal suñu tànk di mixé dañ ko bëgg a def lu bëgg a mat cinq fois yoo xam ne dañuy mixé ci naaj bu tàng bi loolu loolu loolu métti na metti na copain fii xoola gars yi toog fee ne buñ la xam nga rek bañ a toog di wax di mais ku nekk bu waxoon mu musiba day am mais lii dafa métti dafa métti dafa métti pour bugg a daan suñ doole rek rek rek rek moo ñu tax a jóg. suñ liggéey fii bari na mais dafa métti quoi dafa métti trop boo xoolee ba si biir maanaam lu ñuy fay sax du ko jar quoi mais jom rek jom la quoi dañoo bàyyi famille bàyyi lu bari ak dëkk bi fu mu toll nii dafa métti quoi. bu ñu ñëwee si suba si. bu dee tànn am na dañuy tànn bu dee sol bi heure bu jotee ñu dugg si sol bi ñu sol bu ñu solee ba pare mu feeñ suñu xaalis ñu dem ñibbi waaw loolu lañu am fii liggéey bu ñu jógee suñu kër gi rek ñëw nañu liggéey. métti na méttiwul parce que da ngay daan sa doole nga am xaalis li ngay fajoo sa soxla ak sa njaboot xam nga ne boobu moom bu jamono bu nga heure bu ngay liggéey noonu day xaw a métti waaye bu paree da ngay fàttee sa métti ay bi parce que jot nga sa xaalis. mun nga dem nga jox sa njaboot yi ñu lekk. bu dee kaju bi dafa bëre des fois vingt heures des fois du vingt trois heures mooy jamono kaju bu mu bëree woon noonu waaye comme jamono bi kaju bi bërewul des fois cinq heures des fois deux heures des fois quatre heures la ñu fiy jógee. ñun nag si indien bi lañ nekk si magasin bi daam ay indien yu ñëw fi ay ay chinois mais magasin yi nag bari na mais ñun ñooy wàccee presque ay tonnes mille cinq cent. xam nga bariwul ay mille cinq cent loolu du xaalis. ndax kaju dafa diis li nga saaku ma toog nii ak saaku yi taxaw yëpp dañ koy daw ak moom si biir da duñ ko teg dara lu dul suñ bopp yi nii suñ bopp yi rek lañ koy teg da dafa métti liggéey bi moo métti da ñu lay expliquer nii sax doo comprendre parce que dafa métti ñi ñu ñu fi nekk ñëpp ay jeunes leen ñu ñëpp ñii ay élèves leen école tëj amuñu si luñ jàpp ñu ñëw du mbëkk ñii ay dañuy naar yi feneen ñi ay mool leen waaw ñi yor nañu métier mais damuñu. fay bi maanaam doo liggéey si biir si biir magasin bi maanaam nga yenu ko nii dugal ko si biir ak saako bu mag yi burutu yi ni saako yu diis la day mat presque ay quatre-vingt-cinq kilos da koy mat des fois mu mat ay quatre-vingt-huit mais loolu dafa métti ak ñun suñ jëmm yi nu mu toll nu mu tuutee fo dafa métti quoi duñ wàññi woon saako yi sax mu tene. parce que ñun ñu fi nekk ñëpp ay doomu aadama leen du ñu ay machine mais jom xamoo foo jëm. daal doole rek daan doole rek moom moo ñu tax a jóg daal daan doole rek mais xoolal suñu suñu suñu yaay yi suñu yaay yi introsé nañu fii dégg dégg nga seen wax mais ñoom tamit métti na nañ ñii dañuy sol gis ngeen nu ñuy nu ñuy daanee seen doole pour yóbbul njaboot gi ay saako cent cinquante mais war nañ leen mën a yokkal ñoom tamit. liggéey bi ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp mooy loolu seen mbir dafa metti yaa booy seen mbir dafa métti war nañ leen mën a defal saako deux cent cinquante ba téeméer sax war nañ leen ko mën a fay mais suñu mbokk yi bu ñu dimbalee rek kon ku ci nekk da mën a gis sa bopp. dina magasin bi du mel yi nga saako yi escalier yi si kaw ñun ñoo koy aj kenn mën na see daanu gaañu boo gaañoo da dem toog kenn du la faj. normalement ñoom boo daanoo ñoom ñoo la war a faj. mais duñ la faj mën nga daanu surux sa tànk am problème mais yow yaay dem toog débourler pour faj sa bopp mën a ñëwaat loolu métti na. ñoom ñii di liggéeykat yi ñu ngi sàkku ci ñi nga xamante ne ñooy responsable yi ñu yokkal leen ab seen i payoor ndax ñu mën cee gis seeni i bopp. gis nga pile bi gis nga pile bi ñun ñoo koy yéeg di ko piile si kaw mais tonne bi dafa ndaw. kon bi dafa ndaw tellement boo xam ne liggéey bi métti méttiwaay boo xam ne kenn mënu la koo wax ay tonnes mille cinq cent nga bëgg a yéeg escalier escalier boo xam ne mu ngi bëgg a toll ni ni garab gi nga bëgg koo yéeg di riime ak saako burudi yi nu mu nu toll saako boo xam ne mu ngi bëgg a mat cent nga bëgg koo yéeg aj ko si kaw loolu métti na grand liggéey bi dafa métti. bu dee ay Guinée Bissau yooyu noonu ñun dañ fa daan dem di liggéey campagne. mais xamoo rek liggéey sa dëkk moo gën quoi ngay génn dem si beneen dëkk quoi loolu moo ñu fi bàyyi mais liggéey bi duñ señoon ñu yokk ko quoi état gesuñu xam ñun suñu liggéey fii yëpp kañu bi lii asib la asib des fois du tàngee nii da ngay gis muy saxaar lii yëpp tànk lañ ngay liggéey des fois dañuy liggéey suñu wàcc suñ loxo yëpp ay góom la ay góom ñu ñëpp dañuy blessé dañuy lakk nice mais dañ koy gérer dëkk bi moo toll foofu saawaay parce que doo doo ñu gisee da nga naan ñii dañoo amul fu ñu jëm wala soit mooy loolu da liggéey bi duñ wàccee oto bi nii tonne bi 1500 la ñu wàccee ko génnee ko liggéey bi moo bëri ay kii quoi dafa bëri de wute quoi mais tonnage boo si liggéey 1500 la moom la lay fay quoi mais loolu mais loolu dafa tuuti 1500 ñun instant yi 2000 lañ soxla wala 2200 ñu ko amoon moo ñuy jël quoi parce que. dangay ngay yéeg moom daw ak moom si biir da fii sax jege na am na yeneen magasin yoo xam ne ay jifongoor ay butut ñooñu ay picc la da ngay daw long mu time dafa métti dafa métti trop. am nga saako bi dañ koy def fanweer waaye bu ñu sañoon ñu yokkal ñu tuuti bu dee ñoom tamit du leen gaañ de waaw dañ loolu lañ leen ñaan ñu yokkal ñu tuuti ñu am ci tuuti bu ko defee boo liggéeyee. des fois ñu da ngay xool fii ñun vingt quatre personnes ñoo fi ñëw liggéey vingt quatre personnes ñoo fi ñëw liggéey kon bu dee su fekkente ne ñoom tamit du leen gaañ mën nañ leen yokkal tuuti ñu am waaw bu ko defee bu même bu ñu defoon saaku deux cent wala deux cent cinquante dinañ ñu xaw a tànn te ñun tamit dañuy kontaan bu fekkente ne yàgg ñoom tamit gaañu ñu leen de waaw ci dañ leen di ñaan rek ngir yàlla ak yonante bi ak suñu liggéey lu ñuy def waaw loolu lañ leen ñaan du forcé dañ leen di ñaan si diggante bi ñu jàppale ñu yokkal ñu prix bi tuuti ndax ñu am ñun tamit. bëgg nañ ñu yokkal ñu suñu tonnage ñu defal ñu ko mille francs 5000 francs bëgg nañ ñu defal ñu ko. dañ koo jooy ba sonn jooy nañ ko ba sonn mënuñ ci dara mais fii dafa am yoo xam ne ay intermédiaire yoo xam ne mooy loolu dafa am indien yi dafa am ay ñu ñu ñun yoo xam ne ñoo nekk ci seen ginnaaw mais ñooñu ñoo ñu war a mën a dimbale ñooñu dimbale wuñu mais ñooy bu ñu leen jooyee suñu cas duñu duñ dañu naan waaw rek te duñ ko mën a duñ ko te duñ ko wax duñ ko duñ ko yeggee indien yi indien yi amuñu problème de mais suñu mbokk yi ñooy problème bi grand suñu mbokk yi ñun ñooy problème bi mbokk yi bu ñu dimbale woon rek kon suñu bamba dana maasee. liggéeykat yi di liggéey ci magasin stockage Ndamaras yi rawatina jigéen ñi di sàkku ab financement ci nguur gi ndax liggéey gi bëri na coono lool te bu ñu sañoon ñu daal di am seen yëfi bopp.